ngeen jëf mbokk yi ñuy teewlu fii ci seen télévision Bichri TV ba tey ñu ànd ak yéen ci màggalu euh, ki nga xam ne rek mooy Serigne Fallou Mbacké tey jii nag euh, ñu dem seeti ki nga xam ni mooy Serigne Abdou Fatah Mbacké mu Serigne Modou Xabbaan mu sëriñ Fallou tey jii moom la seeti mu wax ñu rek ñoom ana naka la ñuy waajalee li nga xam ni rek euh, mooy seen màggalu maam boobu di Serigne fàllu Mbacké. ñu ngi fay di la jëloon nuyoo asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. ñu ngi leen di dalal ak jàmm fii ci ëttub Alaaji Xabbaanum Cheikh du Fadal ñu ñëw ngir waajtaayu màggalu Kazu Rajab ni ñu waajale màggal gi mooy niñ ko baaxoo waajale jàng alxuraan jàng xasida euh, defay salatu ala nabi ñaan sunu borom subhanahu wa taala mu jotale yool bi ci njabootug Seexul Xaddim gi nag màggaluk Alaaji Fàllilu euh, li waraloon ñu wootal ko màggal gi mooy sant ci yàlla sunu borom subhaanahu wa taala sant ci it Cheikh Mouhamadoul Fadal niñ ciy sante yàlla bokk na ci mooy guddi gi nga xam ne guddi gu la ci ñun ñu amaat ci xaas am ci tawfeex muy am ci Cheikh Mouhamadoul Fadal ñu di ci sant bu baax a baax a baax loolu mooy waajtaay wi waajtaay wi daal def nañ ko ci anam yu am am solo mooy lu jiitu weer wi di teru teeru nañ ko teral ko itam teral ko ci sàmm kóllëre mooy seeti kóllëre yi nga xam ne Cheikhul Xaddi Cheikh Mamadou Fadel amoon na ko ci biir ay bokkam ñu tànn ci ñenn dox suñu jéegu dem seeti leen toog fa def fa ab waxtaan jokkaat mbokk gi fàttaliku diggante mag ñu baax ña ngir luñ ci mën a roye ci diggante Cheikh Mamadou Fadel ak Serigne Ndiogu Mbacke def nañ ko itam ci diggante Cheikh du Fadel ak mag ñu baree baree baree bare li ko waral nag mooy dox doxiinu sàmm kóllëre ndax sàmm kóllëre moo waral Cheikh Modou ak àggoon foofu yëpp ci biir ay bokkam ci biir mbokki taalibeem noonu lañ ko doon doxalee. bi bi ñu magal gi desee ñetti fan itam def nañ benn cérémonie conférence boo xam ni sëti Cheikh Modou Fadal yi ñoo ko doon taxawu fii def nañ ci benn exposition boo xamante si itam dunduk Cheikh Modou Fadal lañ ci def ngir wan ko askan wi njëriñ ya ca nekk ñu mën koo jëfandikoo ndax léppam ngëneel la. moom Cheikh Amadou Fadal def nañ ci itam benn téere boo xamante si ni njabootu Cheikh Amadou Fadal ñoo ko doon taxaw ñoo ko doon saytu ñoo ko bind ba agsi na Sénégal ñu war ko jëfandikoo dara génnu ci Cheikh Amadou Fadal téere booba ñu ngi koy xaar ñi nga am itam yéene ju rëy rëy ci taxawal daaray alxuraan joo xam ne ñu ngi koy defal alaaji Mamadou Fadal fee ci ndindi tàmbali nañ ko ba ñoo ñoo ngi ci nii di ko doxal incha allahu rabbi moom itam ña nga ci ba toll bis bii nga nekk nga xam ne mooy màggal gi lii lii li yéene ji ak ak li Pastef bi li li mooy dundal ko ci niñ ko baaxoo dundalee mooy xëy jàng alxuraan jàng xasida berneel gan ñi xiirtal leen nag ki sant Cheikh Amadou Fadel ñu santale Serigne Touba xaadimu rasulillahi yàlla suñu borom subhanahu wa taala ndax daray sëñ lu génnul sëñ Touba kon lii day day dugg ci biir cant koo mën a sant yàlla. ndaw ñi moom li leen di conseil mooy di leen diine conseil mooy jaamu yàlla nangoo liggéey te jàpp sa ñàmbur loolu mooy mooy mooy mooy mooy conseil bi conseil la boo xamante si nii nag euh, war nañ di ko fàttaliku di ko yeesal bu baax a baax a baax rawatina borom bis bii ngeen ñëw da cee doon exemple mooy moom lu mas a def rek réewam a tax ndax bi mu nee maay Sénégal daa taxaw temm ci jëmmal ko ak jàppale ko jàppale ko ko mooy dana yar ak njabootam ba lañ bëgg mu lañ bëgg ñu ne ca ñu ne ca. dana dana dana dana leen xiirtal ci nangoo liggéey ba duñ soxlaale kenn dana leen def ci ñoom ak doylu ba lu ñu am mu doy leen loolu lay dénk askan wépp di ko dénk sama bopp jégul bu baax a baax jërëjëf